mbok julidi mbok téléspectateurs yi seetaan sen chaîne bi di almisbah tv ngi len di nuy bu bax di len ziyara di diital ci nuyo bi ak ziyaar yi kilifa gi xaj Mansour Mbay waye itam di nuy Chérif Cheikh Ahmed Tidiane mi ñuy nekkal ci xarala gi nuy njabot gi yeb tabarakallah ñaan yàlla mu defal len jam jami adina ak jami alakhirah jami bir ak jami biti jami xelab jami yaram ak jami poche yàlla nako yàlla def ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp darsu kifayatu raghibin bu Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu mbokk yi keroog ñi ngi tolloon ci wa fi risalati tahqiqi fi talfiqi li sayyidina Abdil Qadiri risalati tahqiq fi talfiqi bu Cheikh Abdul Qadir ibn Abdul Karim fa la ñu toll ci fi muy waxee ci wàllu sëy yi ñuy war a dagg tas ko jaaroon nañ ci keroog sëy yi nga xam ne limoon nañu leen nga xam ne bu ñëwee sharia day dagg sëy bi tapit te du laaj góor gi faseel mboole masala yi ma jaar yooyu sharia buy tas sëy bi du soxla baatu fase maanaam baatu na jëkkër ji fase jabar ji ñu prononcé non noonu nit bu takkee juróomi jabar bu ñuy tas sëy bi kenn du ñëw ne ko ñaanal baat kenn du ñëw ne ko faseel ndaw si sëy amu fa dañu jël ndaw si rek yóbbu këram nit bu fasee jigéen ñett yoon ba pare takkaat ko te beneen jëkkër néewu fa kenn du ne ko fase ko jël ndaw si rek mu ñëbbi këram sëy bi charia moo koy daggal boppam du xaar góor gi prononcé parce que amoo jabar kazalika ku takk sa koj armal sa sœur nga xam ne waru leen a sëy nga sëy ak moom kooku charia du ñëw naan la fase ko parce que ki ngay fase day doon sa jabar mbaa nu fas mu fasu lii ñuy dagg fasuwul kon yooyu la bëgg a wax mu ne bokk na ci itam fii ibnu abdul karim di wax nee na même bu borom xam-xam yi amee consensus ci tas benn sëy boo xam ne yow gisoo ñu prononcé ko fii nekkul ci masala yi te borom xam-xam yëpp dëppoon nañ ne sëy bii warul dem nee na su boobaa charia da koy tas ndax xeet wi yëpp lu ñu dajee ci ak te bu borom xam-xam yi d'accord ne sëy bii warul dem sëy boobu buñ ko tasee charia day reconnaître tas googu loolu lay wax ne wa amma ini tamaatil a'immatu ala fasaadihi ay an nikaaxi kal adami walida law aqada sax nikaahuhu dëgg la waa bi mu ko takkee sax mi ngi woon ci jàpp ne ne mi ngi ci sëy waaye dañuy dagg sëy bi tappit ndax boroom xam-xam yëpp nee nañ sëy bi mënul wér masale bi kër yeewu nag ba borom xam-xam yi am consensus ci ni lii sharia tas na ko su boobaa dañ koy nangu te mooy aima yi mooy njiitu borom xam-xam yi ci lislaam loolu lañ ci jublu wa innama yajibu al istibraau bi thalathi xiyadi li annaha istibraau zaniyati al xurrati nee na li ñuy tuddee seetlu nag su boobaa foog mu am li ñuy tuddee istibra ñi ma wax ñep bu ñu daggé seen sey yi da nga ko takkoon ñett da nga ko ñet takkat da nga takk juromel da nga takk sa ko armal da nga takk jaamu jàmbur yu melni yi yeb bu amé buñ leen séparé ba pare fokk ñu lablul ko lablul ko moy fokk ñu neggandiku ba xam jël na ëmbam déet moy genre idda lay japp waye idda bobu pour lu rek la ba wirne jëlewu fa dara lu muy yóbbaale luy nuroog doom te loolu nee na ci ñetti mbërëg lañ koy natt kenn du wax ñetti weer dañuy xaar ba mu gis mbaax ñu ne benn mu demaat ba gisaat mbaax ñaar mu demaat ba gisaat mbaax ba set ñetti yoon bu setee ñetti yoon yii ñu xam ne kii nekkul ci ëmb jeex na su fekkee dem na ba nekk koo xam ne du gis mbaax ni ki dafa mage wala du gis mbaax ni ki dafa nekk xale ba mu ëpp kooku su boobaa dañ koy konteel ñetti weer mais ci weeru wolof dëgg la weeru wolof la ñuy wax weeru charia rek mais woo weeru wolof ñu bañ ko ko iñaane parce que loolu soo bañee wax weeru wolof it da lëndëmal affaire bi kenn du ko xam yére wolof ginaaru wolof weeru wolof benn mbokk nee wolof yi moom liñ bëgg lan la ma ne ko mais boo leen ko bëggee xañ li ngay wax du leer yow ginaaru wolof boo bëggoon a wax ak ab sénégalais tey bu ko wax ginaaru wolof yow lan nga koy wax yow ba mu xam ko lu dul ginaaru wolof ah nangul ko ko rek loolu la yàlla def maanaam loolu ci waxu jamono la rek loolu sunu borom moo koy def ay waxiin la yoo xam ne dañ koy tëgg ci jamono pour mën ko xam voilà su ko defee yooyu tamit day am mu ne kon mbërëg ñetti yoon mooy wane ni kii set na waaye loolu ma profité waxaale ne même jigéen gu ñu fase muy jàpp idda bum mu weeru tubaab na konte ñetti mbaax yi muy gis moom su gisee mbaax ba set gisaan mbaax setaat gisaan mbaax setaat jeexal na iddaam noonu lañ koy nattee su fekkee nekk na ku ménopause wala koo xam ne amagul mbaax day konte ñetti weer ci weeru wolof donte ñun weeru wolof léegi duñ ko jàpp weeru koor ba weeru koor lañ koy soxla te bésu koor gi njëkk gi lañ ko soxla ak bésu korité bi pare nañ ci ak bésu tabaski ak bésu tam xarit te jouru feet bi lañ ci soxla li des ci weer wi suñu yoon newu ci kañ la tabaski bi ñu ne naa ah d'accord jeex na kañ la korité bi nangam kañ la koor gi nangam kañ la tam gi bu ñett yi jeexee c'est fini soo amaatee bis yu ciy toppatoo mooy kañ la màggal gi ñu ne bés sàngam nga ne ah c'est bon lu mu tombeek ñu ne 18 ah le 18 kon c'est bon pare nga ci ko à côté léegi la 18 boobu ngay xaar boo ci jógee lan nga jëm kañ la gàmm gi ñu ne gàmm gi le 12 la ah le 12 lu mu tombeek ci weer tubaab ñu ne le 12 ah c'est nga téye la douze boobu pare nga ci weer wi amoo ci soxla loolu nag war nañ cee jóg du yoon ndax lu bari ci suñuy jaamu yàlla ci weer yooyu la aju koo xam ne sa aj màkk ci weer woowu la aju sa woor ci weer woowu la aju sa tabaski ca weer woowu la aju sa korite ci weer woowu la aju sa koor ci weer woowu la aju sa idda ci sa idda bi ngay jàpp ci la aju sa tinj bi ngay def ci la aju waaw sëñ bi yaa xayti yi weer boobu kay ñàkk koo xam ëpp na te weeru tubaab leen doon leen doon nga ci am salaire te salaire bi sax ñëpp amuñu ko ci parce que réew moo xam ne boo nee 17 million ñoo fa nekk 17 million ñu naan la ay cent mille personne ñoo fay salarié 800000 est-ce que xam nga fii réew mi li fiy fayeeku salaire matul 1 million personne lii dafa reelu sax ah tax bis bu ñu ne yokk nañ salaire yi ma ne ah wàññi ngeen de ah ndax ñi fayeeku salaire bëriwuñu par rapport ak ñi ko fayeekuwul voilà même pas un million de personnes kooku lay wane rek ne euh, secteur informel bi am na doole de <laughs> dégg de <coughs> léegi nee na laablu gi dana nekk ci ñetti mbaax wa in waqaa alqulu fiihi lam yanfuz wa dalika ka nikaahi alxaamisati même bu fekkee si meeku moo ca am du wéy nee na kadaalika ni noonu koo xam ne sëyu juróomeel la def ak koo xam ne sëyu koj koj armal la def maanaam koo xam ne dafa takk goroom kenn mësta gis loolu takk sa yaayu jabar euh, walla koo bokkal nàmp wala nga def sax li ñuy tuddee nikaaxul mutaa nikaaxul mutaati mooy lan sax mutaati mooy mariage temporaire waaw mariage temporaire boobu ngeen di gis woyu yeeg màggatu band yi di ko daganal ci télé yi ci li gëna haram ci l'islam la bok moy nga xol jigen rek ni xemem ko dana ko dama bëggoon ñu takanté fii ak trois jours mu ne oké ngeen takanté après 3 jours ngeen tas bi mu jeex amna ci ko ku osé ba yegg ne bir car rapide bi ngeen nek sax bu le nexé ngeen takanté fa même pas 3 heures de temps ngeen tassat sey bi ku nek dem l'essentiel bu fekkee soxla nga faj aajo rek digënté boobu mën ngeen tak sey bi bu ngeen sey ba paré après mën ngeen ko tassat ku ne dem day tax njaaloo du am ñom nenañ euh, euh mariage temporaire lolo tax mu bax tay tax ndialo du am yow bo démé ba yek sa bop rek man nga dajé benn jigéen ngeen waxtaan d' mu d'accord nga jox ko cyan nga takko ko ngén dem teud su leen nexé sey bi jeex bu leen nexé ngén continuer wat ba ca kanam su ko défé euh, loolu muccel na len yéne ngi sey ta ndialo wu len mais loolu ay katch la loolu kay ndialo buñu moderniser la rek <laughs> ndialo buñu moderniser wala ndialo buñu islamiser voilà c'est la même chose ñaareel bi ci des loolu bu amee doom ju juddu ko ko moom ah kii génn fii dajeeg xaali te ma bàyyi xaali kii génn fii dajeeg benn waay waaja ne ko da koo soxla takk may ko benn deux cent mille ñu takk seen jabar une semaine kenn ku ne dem mu jógee fa dem sali dajee fa ak benn waay waaja ne ko moom daal dafa bëgg jigéen gu mu takk fii même pa bon une semaine trois jours sax day dem mu jëlaat kooku rekkal dafa benn trois cent mille muy cinq cent mille mu defaat ci poosam kooku kooku trois jours jógee fa dem Kaolack dajee fa ak koo xam ne nee na moom daal bëgg na ku mu àndal un mois mu may ko un million waaw léegi kooku bu paree ci ñooñu ñëpp ñibbisi si ndakaaru toog ëmb kan moo ko jur kan lay wax ne ko yaa jur sama doom kan te encore yow boo amatee doom boo amee doom doom yooyu foo leen di karee ci parce que loolu bu xasee yomb yow mën ngaa séy ak téeméeri jigéen sa deret tas ci àddina bi loolu loolu yabaate la dëgg la mosoon na am ci lislaam jamonoy xare mësoon na am xare bu ñu dem ñu jël fa temps bu yàgg diire yonent bañoon saxaaba yi mooy yàlla mu may leen ndigal ñu takk fa jabar bu ñuy ñibbi tas sëy bi ñibbisi loolu mësoon na xew parce que boobu euh, léeg-léeg ñu daan dem xare def fan ñu yàgg fa ñi mënul téye lu yàgg te du ñu sëy mën nañoo mooy yàlla mu ubbi leen bunt boobu ñu def ko mais après Seydina Aliyun nee na dañ koo xaraamalaat te xoolal ñi ëpp ñi ko daganal tey njabootu Seydina Aliyun la te waxu yonent boobu ki ko jottali wax ne yonent keroog bi ñuy xaraamal lekk yàpp mbaam moo mariage temporaire ñoo bokk benn kàddu bu mu leen xaraamaloon ne sunu borom ni mu xaraamalee lekk yàpp mbaam noonu la xaraamalee nikaaxul mutaati mooy mariage temporaire kon yii yëpp boo ko defee dañ lay lim comme koo xam ne nii da ngaa njaaloo <clears throat> wan nikaaxu ak sëy ala xurriyatil amati comme nam ko waxee woon ci jaam boo xam ne jaamu jàmbur la nga jël ko takk ko di sëy ak moom loolu mënta nekk jaamu jàmbur kenn du ko takk waaw ndax jaam moom du lu ñuy takk dañ koy maye mbaa nga sëy ak moom noonu yow mi ko moom direct mbaa nga goreel ko keneen ñëw takk ko mu nekk gor dégg de wa naxwi dalika ومن خالف في بعد هذه الافراد من العلماء شيخ حاج مالك مونے دو نياك ام ني ووتيك لي بوروم خام خام واخ مونے دو نياك ام ني ووتيك بوروم خام خامي لي ني واخ شيخ حاج مالك مونے فلا يعتد بخلافه سو بوبا ньо ني سين ووتي بوبو مونے كين دوكو لي ndax ngeenki xam xam yi li ñu wax li mo wër kon ku wuté ak suñu imam yi nga xam tay soo jëloon mazaayibul arba ngën ci xam-xam yi nu xam yépp d'accord nañ ci masale yi muy wax mu ne yeneen masale yu ñëw di wuuteeg lii boroom xam-xam yi wax mu ne wuute boobu bu leen ko limaale fala yu'tadu bi xilaafihi li du'fi madrakihi mu ne lu tax du ñu nangu du ñu limaale wuuteem boobu duñu ko compter comme comme wuute la ci boroom xam-xam yi mu ne parce que amul dayo boobu amul maqaama boobu amul cëri ñu koy gam-gam leeg boroom xam-xam yi naan boroom xam-xam yi nee nañu diw nee nañu mu mel ni mbir mi leeragul bu baax faf mu duut ca baaraam ne ka zahiriyati alxaamisati ni ki daawuda zahiri yi euh, am na ñoo xam ne dañ wane ne daawuda zahiri yi nee na takk juróomi jabar dagan na te mi ngi layee ci mas naa wa sulaasa wa rubaa moo tax Seydi Hajj Maalik duut ci baaraam ñeenti ay ima yëpp imaam Malik imaam Shafi imaam Abu Hanifa imaam Ahmad Hanbal ñëpp d'accord nañ ni juróomi jabar dafa xaraam te sëy dañ koy dagg tappit ci digg bi boo ko xamee dañ lay xadd te dañ lay wékk doom te te la nga doon def njaaloo la Daawda Zahiri moom ñëw na foccet ne dagg bu leen ko limaale waka nikaaxil mu'tadati ak koo xam ne dafa takk ci kuy jàpp idda waaw jigéen di iddawu su ko defee yii yëpp am na ñuy daganal jigéen ñi ci daga takk ko ñii di daganal juróomi jabar mu ne ñii ñu wuuteeg borom xam-xam yi Seydi Xaaj Malik nee na ñooñu seen wuute bu leen ko conti ci wuute boroom xam-xam yi bu leen ko tuddee ay wuute borom seen wax kenn du ko jàmmale kon neel rek am na ñoo xam ne wax nañu leneen mais pas que borom xam yee ci wuute déedéet kon mbokk yi dafa mel ni maa ngi yëg ne li ma amoon ci ay simili jeex na ñu ngi leen di jox dig daje semaine bii di ñëw jaajëfal Chérif Cheikh Ahmed Tidiane mi nekkoon ci xarala gi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ختم